kaanu du baay jox ko jox ko muy taloo taloo ko ñu xool taloo ñu xool yow sax kaanu du baay ba mu du xees ak toppee kay jantal male kay ngam du dof asalamu siis kaanu du xalaat mu ne ngeen jënd seede yi mbaa xuru cukkalu du noon am def waa ngay kontaan nañ ah, pour man lii nii voilà job la quoi gaaw a bëri bu bu activité bi génn ci ay centre culturel lañ koy defee ci ay truc ñu am brise am piscine am lépp kon job bi mu ngi avancé waaw donc ñun tamit lañ ko jàppale li grand sama wax dëgg la waaw mais man dinaa génne léegi pentaw ma jënd léegi nag yeneen kàfo yi ñoo di kàfo yoo xam ne ñuul kooku moom jënd kaana du xalaat ah, ay ca jaajëfatee merci beaucoup sama gars yi waaw waaw waaw dara sama ay père war nga fi nekk ñoo jël kàddu ay ñoom Papa Simon ay ñoom Papa Dabrensi Lengiri Kol Les Diwan ak koo xam ne nit ku spécial la ci man ni pot ba ma gis lan mooy loxo pot parce que li ñu doon tey moom la ah et kii nee naa ne li mu am du chance mérite la kii dafa joob et kii dafa kii et dama bëgg nga xam dara ñax du sarab ku ko yóbbu dinañ garal et dafa am loo xam ne dama ko defee woon benn affaire boo a ne arène nationale lañ ko defoon soo bi ma defoon foofu bi su ma ko def sama àdduna eh, tey dama koy defaat fii kon dama bëgg ngeen xam ne rek tey dama dama impro gën a réer taar yi dama rapport dama dama aale ndax ngaa saa soo xol mooy ay man ngaa doy du du maa ko fekk ñëpp nuuru sama tur laa dégg dégg tudd du bëgg naa yéen ñëpp tàcc mais ñëpp yuuxu ngaa nga sa cuucu nga fiicu di yuuxu boo ngaaka kenn du ko sóoru public moom la ñu wóolu ndax boo bon la ñu jox nga dundal bro yaa fi nekk kontaan ci yow bu baax a baax a baax a baax gaa yi est-ce que muy maa nuyu gaa yëpp grand yëpp suñu papa yëpp billaahi yéen ñëpp ay papa ngeen parce que ñi toog fii nii ñëpp ay icône lañ ay référence lañ dañu nekk si dëkk bi ba pare di def si dëkk bi ba pare di liggéey si dëkk bi kon Ngaka bu doonee xam nga jeune comme ñun ba pare def leen loo nii dafa dafa intercontinental ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun même bu dee da nga war a liggéey sax da nga koy bàyyi ñëw teewal ko kon Ngaka congratulation boo félicitation affaire naaj na bu demoon bu doonoon Casamance sax dañuy ñëw foofu noonu support la dégg nga eh, maam moom wallaahi nee na may ko laaj taru gars yi nam ngeen ne laaj taru laaj bi tar taru kon demal sa bopp eh bu yaakaar si nit ndax lu yàlla dogal jàmm du ko dindi noppil te liggéey bu lijjanti détaani jigéen xoolal dund sa dund te bu ragal ku la mere ndax nit soo ko affaire am la su la meree dalay jaay bëri jikko eh wan ko ni joxuma lekk ah kon yëkkal sa fulla ca jéngu sa buntu na dëkk ci jéeku koje ku baax ko bul wax ni seeku na nga dëkk sa fekk na se nga ki ko ñu da ko ragal eh xalal yàlla kese mënta ragal laaj bi toru dama naan bilaay wallaay laaj bi toru daa